Sud FM xibaar yi. asalaamaaleykum mbokk déglukat yi li ci gën a fees di dellu kaso kii di Idri Hissène Habré ginnaaw bi ñu ko mayee permission euh, ci euh, ay fan ngir euh, jàngoro coronavirus bi mel na ni nag nee permission ba jeex na ay jugeem ay avocat kon doon nañu utaat ñu yokkalaat ko permission bi waaye mel na ni juge bi. dafa ni loolu euh, yoon mënu ko daal di ak euh, cellule communication moom daal di nañuy génne bataaxal di ci ñaxtu collectif bi ëmb comité de développement sanitaire yi nekk fa li nga xamante ne euh, moom mooy ci wàllu couverture maladie universelle mi ngi laaj ñu fay leen ay ndàmpaay nee nañu itam nemmeeku nañu ne daal recette yi am na lu ci wàññeeku dinañ ci déglu. Euh, ñenn euh, ca ña euh, ŋànk li nga xamante ne moom mooy comité ba ci wàllu dem beeg dikk bi gis nañu ne set place yi ñoom ba tey ñi ngi yàpp lim ba ñu daan yàpp clients yi di najaloo ci biir waaye nag ñi ngi respecté itam lu ñuy tuddee mesure barrières yi ca gaaxu routière liberté bu Kaolack waaye thermoflash moo fa daal di amul te loolu xaw na leen jaaxal ci yeneen euh, béréb yi nga xam ne ay gare routière itam am na fa euh, gis nañ ñu daal bu fekkente ne ñi ñi ngi respecté mesures yi ñeneen ñi ñi ngi ba tey am euh, fu ñuy soxe ci wàllu liggéey boobule ci feebar bi itam gis nañ ne soo moytuwul wàllu ñàkk bi ci lu jëm ci poliomyélite xujol ak choléra euh, dana yeewwaat ndax wayjur yi dañoo daw bu fajukaay yi ba tax na xale yi yóbbootuñ leen ñu daal di faju collectif comité développement sanitaire bu Kaolack def ci taxaw seetlu te bëgg itam ñu ubbi ci benn campagne de sensibilisation li gënoon fes ci ay bés bi kii di Josette Kali moo ñu koy daal di dënkal Pape Lay moo nekk ci machine bi Ndeye Khady Diop salaamaaleykum cellule de communication bi yitteel président Habré nee na kat mi ngi xamal nit ñi que ni juróom benn fan ci weeru juin ci la permission wu ñaari weer bi ñu mayoon kii di Hissène Habré ngir mu génn ko ci kaso bi li ko waraloon di jàngoro coronavirus bi ñu daal di ko fay génne woon ngir gën a yokk kaaraangeem nee nañu nag permission boobu dafa daal di jeex bi mu jeexee ci juróom benn fan ci weeru juin. ñu daal di koy demandé laatal permission permission bi nag juge bi nee na du ko ko mën a jox te ñoom jàpp nañu ne fi jàngoro ju toll nii Sénégal romb ñeenti junniy cas wóorul ñuy delloowaat kii di président après euh, ci fi nga xamante ne moom mooy kaso bi kon euh, nee nañu daal jàpp nañu ne fi ko juge bu wéer du noonu te itam war nañ ko ko euh, mën a mayaat ngir gën a yokk kaaraangeem ci jamono bi nga xamante ne feebaru coronavirus bi mi ngi gën. Euh, di law euh, ci askan bi ñu wax euh, ci ki nga xamante ne moom mooy Umar Senghor moom la ñuy ñëw daal di déglu léegi moom Umar Senghor kon moom mooy di chauffeur waaye itam yore lépp lu jëm ci wàllu fiche yi ñuy defar ca gaaxu Thier. Euh, bu foofu euh, foofule gis nañ ne ñii di oto set places yi ñoom ñi ngi yàpp ba tey li mu nit ñi nga xamante ne euh, moom la ñu daan yàpp clients yi wéy di najaloo moom Oumar Senghor nag di chauffeur itam di chargé itam mbind mi ci client yi yebu ci biir euh, garage bi nee na euh, ñu ngi sàmmante ak li nga xamante ne moom lañ leen digal waaye thermoflash moom moo amul euh, ca gare routière Liberté bu Kaolack dañ koy déglu ci micro Mamadou Kamara. liggéey ci gare routière bi pour mesure barrière yi maanaam fexe ba xeex ci mbas mi ci loolu boo ñëwee yow client di tukki am na fiche xam ne moom lañuy ñuy remplir à l'égard du euh, du chauffeur ci bi d'abord après ci client bi chauffeur bi danañ jël numéro permis danañ jël destination bi mu jëm ak turam bon client bi danañ jël numéro téléphone am danañ jël numéro CMU am voilà loolu daal la ñuy xëy ci suuf ba léegi di ko def mais ci oto yi changé wul cette euh, place changé wul changé wul lañ doon yëpp moom la ñuy yëpp ba léegi bon euh, en tout cas boo ñëwee yow client bi d' abord da nga raxasu gel euh, gel hydroalcoolique bi après door a dugg bon waxoon nañ ñu danañ ñu jox sax ay thermoflash je l' avais oublié fàtte woon naa ko mais. gisuleen gisuñu ko. bon soxla woon nañ au moins ku fi ñëw balaa ngaa dugg ñu xool sa tension ci thermoflage bi mais amuñu ko quoi. ngir euh, dem beeg digg bi ci dëkk dëkk mu mën a yomb meexu commune bu Thiès Ouest moom di toppatoo gaaxu ceer bu Thiès nee na dina daal di gunge transporteurs yi ci liggéey boobule ci biir jàngoro ji moom Aliou Sow di meexu Thiès Ouest ci micro Babacar Ndaw secteur transport damay wax balaa may tàmbali nii mooy secteur bi affaire bi gënoon touche mais transporteur cest bu oto bi tàkkul du dund ñu toog dund ko ñetti weer d'abord bi ñu ñëwee li njëkk a def mooy massawu leen mais ñu am jël ko ak philosophie philosophie bi mooy xam ni bu dogal bu dal la il fallait ñu ñu assuré mooy benn leneen li mooy tey dimanche bi ñu ngi fi préfet ñëw sous préfet ñëw le directeur du transport terrestre ñëw tous les acteurs acteurs yi ils été très sensibles à ça maintenant dafa dajeeg nag ñu jëloon ay dispositions pour que la gare routière même pour des mesures de sécurité ñu ubbi beneen bunt bu bees yooyu yëpp dafa ànd ak kii nekkaale benn maintenant li ñu gis fii tey suñ ko appliqué sur le terrain au niveau de Thiès y a pas de problème te yow fekkee nga réunion bi ñoom nee nañu gare routière bi niñ ko nettoyé amul benn gare routière bi bu ko am ci Sénégal la preuve mooy yeneen gare routière jëm ci sensibilisation chauffeurs yi pour ñu respecter les mesures barrières respecter aussi les consignes état teg loolu nag bu koy nit defee ñu ñëw fii ñu nekk secteur transport bi mu metti lool lool li ñu dund ñetti weer yi massawu nañ leen mais félicité nañ ci loolu maintenant li ci des mooy continuer tey am na disposition yu bees tàmbaliwaat bi day xaw metti moo gis lii mooy fiche yi ngeen di remplir loo manifeste ak yëpp loolu bees nañu transport léegi ñi rek posé nañ question bu am solo oto yi tàmmoon di jël nit fii dem ba pour wàccee leen jëlaat foofu ban comportement la donc chauffeur bi ñëw di la laaj loolu day bañ def infraction parce que su fekkoon keneen la danaa xaarama jël dem la fa naan def mais bu koy laajte rek mooy bëgg nañ ko wax mayen matuwaay lay jël loolu nag bu ko ñu di def nga xam ne transport du transport ba fi amoon def lu n'importe quoi ñun ne ñi seqal ngeen gis ni l'équipe de la mairie l'administration à vraiment pour ñu am un bon démarrage du transport ubbite gaaxu routière yeeg dem beeg dikk bii dafa mel ni daal dafa xaw euh, daa di euh, euh, cofantal waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy client yi ñu ngi ñaan kon ñu jël disposition yi nga xamante ne moom moo wax ci jamono bu mu waxee Momar Cissé bokk ci seen ci micro Babacar Ndaw li ma wax mooy Thiès commencé nañ mesures yi mais nag dafa am tuuti retard ñu ngi nag rattrapé wu li gën a am solo mooy mesures yi du wut yu difficile parce que euh, raxas sa loxo euh, sol sa masque obligatoire euh, chauffeur bi def gelam te nag benn prix de transport nag du yokk mais li gën a am solo aussi ñu sensibiliser nit ñi nga xam ne ñooy dem di wër di di jël war gaynde yi loolu jaaduwul te dañuy exposer seen bopp ci feebar bi di exposer seen famille di sensibiliser aussi koñ yi nga xam ne fa war gaynde yi di nekk ak alo Dakar yi ku ci ko ci gis na nga ko dénoncer ñu ñëw jël leen parce que sinon liggéey bi ñu def yëpp encadré ko ci transport bi ñoom ñoo koy yàq lawal feebar bi ci askan bi te loolu euh, vraiment kenn du ko rafet. beneen bi jumtukaay bi ñu ngi xaar ci état mel na ne waaw ñu ngi ñaan ministère du transport. mu gaawal dotation bi nga xam ne moom lañ koy jox en masque parce que euh, am na solo trop pour que garage bu nekk mun a protéger personnel am ak éventuellement client bu fa ñëw te amul masque ñu daal ko ci jox mu protéger boppam durant le trajet. Euh, ñu des euh, ba tey ca Kaolack ndax tey jii la ñu ubbi gaaxu routière yi ci wàllu dem beek dikk bi ci Sénégal yëpp. foofu la nag ca dëkk ba naka la dem beek euh, dellusi bi daal di euh, dooxaat ñu gis na yeneen i problème itam feeñ na mu di problème mu visite technique problème mu assurance ak itam euh, respecté li mu clients yi nekk ci biir oto yi nga xamante ne ñoom ñooy génn dëkk yi loolu nemmeeku nañu ko ca Kaolack kii di Pape kër Ndour di président régional regroupement chauffeur transporteur bu région bu Kaolack nekk itam responsable gare routière bi ñu tuddee garage ñoxo mi ngi laaj kon ñu indi ay saafara yu gaaw a gaaw a gaaw ci jafe-jafe yi ñu tudd léegi moom Pape Babacar Ndour ci micro Mamadou Camara. ñun am nañu ay problème tuuti. dañoo taxaw wax ne oto yi mën nañoo yeb nombre de place. waaye ñu respecté mesures yi. client bi na am euh, masque. waaye na raxasu yéeg. loolu bañ ko defee nag yëpp sept personnes biñ ñëwee ci sortie bi am nañ problème. problème bi mooy ñoom nee nañu policier bi jotul jotul note de service boo xam ne mooy wane ne oto bi mën na yeb li nekk ci carte grise te nag ñun duñ leen reproché dara ndax loolu mesure boobu ñun. jotandoo woon nañ ko ci suñuy email te amul bu ko remplacer donc ñoom bu ñu waxee loolu nekk nañ seen dëgg ñun li ñu gis foofu rek mooy autorité bi ca ministre ba ak directeur ñoom ñoo waroon fexe ba policier jot loolu waaye yàlla dimbali nañu avec euh, nag ak euh, compréhension bàyyi na oto yi mujj nañoo bàyyi oto yi ñu dem ñu ngi demagum ci loolu waaye comme note de service jotaguñ ko ñu koy demander pour note de service boobu alkaati jot ko ba mën a bañ yi ci yi li ci ëpp ci seen dëkk la jeexe ndax nga sa dëkk toog ak sa oto sa batterie yàqu na technique bi jeex na visite technique boobu jeex munoo toog ngayeen sabax mbaa nga toog jigimaar ñu lay defaral sa visite technique il faut présence oto bi oto bi nag pour mu ñëw fii waxoon nañ ne def nañ tolérance un mois ba nangam parce que oto bi mën na ñëw ba fii mais nekkul ni ci jour bi nga am visite parce que mën nga ñëw di fi jaabante lu mat cinq jours yoo xam ne doo am visite nga am leen nee dañ koo maye ñun la fu ñu ko bind moo tax vraiment ñu ngi demandé pour que lépp loo xam ne may nañ ko chauffeur si ñoom ñu def ko ci ay këyit yónnee ko ñuñ ko war a yónnee bu ñu ko yónnee rek responsabilité dañ ciy daal di jot notifié guñ ñu dara waaye liñ déggandoo ak yéen ci rajo yi ak télé yi nee nañu euh, garage yi vingt et une daal moom na fekk garage yi tëj parce que vingt trois heures dana fekk oto bu war a dem rek dootul mën a dem fa ne fa ngay ne donc loolu nañ ñu ko envoyé aussi par email ni ñu koy envoyé autorités yi parce que yooyu yëpp mi ngi ci waaye côté assurance bi ñun mën nañu koo comprendre waaye côté visite technique daal ak côté yebum oto yi ak côté accompagner ñu ci li nga xam ne moom la ñu la ñu war a loolu soxla nañ ko suñu moytuwul euh, lu demee ni épidémie poliomyélite euh, rougeole maanaam ngas ak choléra dina yeewu ca Kaolack ndax programme élargi de vaccination bi kat gis nañ ne dañu ko xaw a cofantal euh, jël xeexum Covid bi teg ci kaw waajur yi itam dañu daal di daw poste de santé yi ndax dañu ragal a dem yóbbu xale yi ñu ñàkk leen ci yenn feebar yi nga xamante ne mën na leen dal ndax la ñuy ragal mooy itam jëli fa feebaru Covid 19 bi collectif bi ëmb comité de développement Cheikh bu Kaolack eh, di ci def taxaw seetlu tey ñaan ñu amal benn campagne bu yaatu ngir ñaax eh, wayjur yi ak autorité yi ngir ñu xool pàcc boobule dañ ci ànd ak Mamadou Kamara. ci jamonoy mbas bi ñu nekk kuréel bi nga xam ne moom moo boot collectif eh, comité développement sanitaire nekk ci Kaolack di fàttali kilifay nguur gi ak kilifay yore wàllu wërgu yaram ne soo moytuwul lu mel ni ngas ak tamit. choléra ak yeneen xeetu feebar yi nga xam ne dañuy dal xale yi soo moytuwul dinañ indi ay loraange ndax nag jamono ji dafa mel ni ñàkkum xale yi dañ ko bàyyi gannaaw daal di farataal xeexu mbas mi moom Mamadou Bakhoum moom mooy coordonnateur collectif bi boot comité de développement sanitaire yi nekk fii ci Kaolack. gis nañu feebar bi ñu nekk nii dañ ci concentré wu ba fàttali am solo yi nga xam ne mooy ñàkk yi doon am muy PV yi PV yi ñi ñi fàtte nañ ko parce que xale da nga doon juddu am yenn weer yi da nga war a dem ñu jël ay ñàkk moo waral yow yi nga doon dégg ay ngas ak yooyu yëpp tétanos déggatoo ko ci Sénégal parce que ñi ñaa ngi doon respecté mais moment bi ñu nekk dafa grave ñuy ragal épidémie amaat parce que nit ñi respecté tuñ nit ñi ñëwatuñ li waral ñëwatuñ nag dañu ragal ak feebar bi ñëw ci poste de santé yi ba xale yi sax ñu ngi leen exposé ci feebar bu grave yooyu nga xam ne mun na indi lu ëpp loraange sax ko corona bi ñu nekk relancer waat les pertes de perte de vie yi ne ñoo am dugg ci nekk xool en collaboration avec les ICP yi ñu ngi def liggéey bu am solo vraiment xooliwaat xale yooyu nga xam ne war nañ mën a ñàkku te ñàkkuwuñ ou respecté wuñ heure bi vraiment pour ñu ñëw parce que concentré wu ci corona bi kese fàtte leneen li nga xam ne suba mun na indi loraange wala mooy ngas yi nga xam ne yaa ngi ko doon dégg déggatoo ko polio yi mooy feebaru euh, euh, laago yi nga xam ne yaa ngi ko doon dégg déggatoo ko donc yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne dañ ko doon ñàkk di ko protéger xale yi parce que parents ñoo ragal la fréquenter ci poste yi wala ragal dem ko respecté juróom-benn ñoom ñoo ëmb district sanitaire bu Kaolack waaye comité de développement sanitaire yi ñoom tooguñ benn yoon ndax ñu ngi ci xeexum mbas mi di ñaax askan wi ñu respecte li kilifa yore wàllu gu yaram waaye tamit ñu ngi ci biir kër yi di ñaax soxna yi ñu dem ñàkki xale yi Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara collectif bi ëmb comité de développement sanitaire yi sax dañu mexe lool ñi jiite couverture maladie universelle nee te collectif bi dafa yox ay ndàmpaay yu ma leen wax a fay di ay arriéré euh, bëgg nañu itam ñu daal di protéger personnel médical bi ci ñaar fukki poste de santé ak juróom-benn yi nekk ci district sanitaire bu kaw Kaolack euh, nee nañu itam recettes yi dafa mel ni dafa wàññeeku bu baax a baax ñu ngi ñaan nag euh, nguur gi. Euh, mu indi ay saafaxa dañuy déglu Mamadou Bakhoum di coordonnateur collectif comité de développement sanitaire bu Kaolack ci micro Mamadou Camara. ci moment Covid bii ñu nekk dañ gis ne poste de santé yi dañoo am jafe-jafe yu mag a mag a mag yoo xam ne pour ñu am yenn matériels yi wala yenn équipement yi sax dafay am problème parce que li ko indi mooy fréquentation bi nit ñi ñëwatuñ ci poste yi parce que ñu ngi ragal feebar bi ci ñàkk a fréquenté boobu noonu gis nañ ne dem nañ ba am na moyens yoo xam ne mënatuñ ko ñu toll foo xam ne état mu ngi wax ne fay na semi ñu gis ne semi bi ñu fay donc boo xoolee ñëpp wala ñu ci bëri jot nañ tranche yu ëpp li Kaolack jot parce que boo xoolee Kaolack ci douze trim yi ñu yoreel li ñu national yoreel donc benn trim lañ ci fay mooy trim un trim deux deux mille dix huit donc loolu ñuy wax état de ko vraiment comme dañu ne woon données yi remonté wuñ ko au niveau régional bon waxtaan nañ ci ak médecin chef bu district bi won nañu ne que district régional ou ñeneen envoyé nañ données yi ba mu dem au niveau national donc li ci des mooy vraiment ñu dimbale population bi à travers semi boobu pour que dañu gis sax nit liggéey ba pare war a dañuy daal di dem ci di gënoon fees ci ay bés bi ànd ci ak Josette Kadi dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud ni ñu doon doxalee état d'urgence bi gouvernement bi gën na ko wàññi couvre-feu bi léegi 23h lay tàmbali jëm 5h du matin li ñu gantaloon dem ak dikk bi lépp yëkkati nañ ko réunion yi ci bërëb public yi ak privé yi ñu delloosiwaat ko salle de sport yi ak restaurant yi tàmbaliwaat seen liggéey ñu teewlu si loolu Aly Ngouille Ndiaye di jëwriñ ji ñu dénk wàllum biir réew mi. yombalal dem bi ak dikk bi maanaam tere biñ ñu ci daan dem ci réew mi yëpp danañ ko bàyyi waaye danañ yëkkati aussi au lieu muy tàmbali vingt une heures onze heures ci guddi lay tàmbali ba cinq heures du matin gare routière yi danañ reprendre pour transport urbain ak transport interurbain réunion yi nga xam ne aussi tere woon nañ ko ci endroit public yi ak privé danañ ko reprendre restaurant yi également ñu reprendre salle de sport yi aussi ci casino yi ñoom aussi danañ am mesure d'assouplissement yi waaye danañ respecter également distanciation yi ak mesure d'hygiène yi relance économique bi nga xam ne président wax na ko ñu dund ak virus bi te jël suñu matuwaay ñu continuer waaye nag muy ànd mooy port de masque bi nga xam ne bii moom alaakulli àll mënut a ñàkk ci bërëb yi nga xam ni nit ñi dañu fay daje. ci diber gi dem ak dikk bi ci biir Sénégal gi yëpp dina tàmbaliwaat ni mu ko waree gare routière yi nga xamante ni ñoom la ñu autorisé mën a tàmbaliwaat liggéey lépp teg ko ci ay conditions yu yees fi mu ne nii képp koo xamante ni di nga yéegati ci oto dinañ xam yaay kan ak fan nga jëm te it dinañu samp ay service sanitaire ci bépp point de départ ñu teewlu ci Oumar Youm di jëriñ gi ñu dénk wàllum transport terrestre. dañuy reprendre ci sago reprendre ci prudence mu ngi fi te feebar warul jaar ci transport pour ci Sénégal donc loolu moo tax kuy dem ak dikk ci gare routière nga war a dem ñaari gare routière la xam ci région de Dakar yoo xam ne mooy nekk les gares routières officielles pour le transport interurbain mooy gare routière Baux Maraîchers ak gare routière bu Rufisque mais xam nañ ne am na pratique bu am ci biir transport mooy li ñu tuddee les horaires dañu am ci quartier yi yooyu aussi dañ ko identifier ak les acteurs la xam dañ identifier am sa numéro téléphone am sa personne contact boo xam ne nii bu jëyee amee wala musiba wala information bu indispensable ci kooku la jaar pour wax gaaru ceer yi war nañ sàmmanteeg moom bu baax a baax a baax transporteurs yi aussi wax nañ leen d' abord personnel bi ni ñu war a taxawee mooy port du masque mesure d'hygiène yi nga xam ne war nañ ko observer képp kuy dugg ci auto transport public faaw ñu jël nag sa température bala nga yéeg mais déjà président de la république yombal na ci lu bari pour reprise dafa jël enveloppe 3 milliards de francs CFA yokk ko ci li nga xam ne jagle war na ko acteur u transport yi léegi enveloppe boobu mu ngi dem ci 8 milliards 250 millions de francs CFA yile dogal ñu ngi ko jël ginnaaw ay manifester yu ñu nemmeeku woon ca Touba ak Mbacké doon sàkku ñu génnee fi couvre-feu bi lu bëree ci ay yàqu-yàqu nemmeeku nañ ko fa tuuti sey ay tàkk-tàkk fépp foo romb saxaar su bari ay xeer ay barre de fer ak yeneen i bagage loolu mooy li nga xam ni moom ngay gis ci kaw tali bi mu nekk pëccëxoo bu yaatu ci biir commune yi di Mbacké ak Touba ci guddik talaata gi ay ndaw ñu gën cee ràññee sax ay xale takkul lool taal nañ ay pneu ci kaw tali yi ku ci nekk nag di yuuxu ba sa fa baat yam couvre-feu dafa war a jeex ay waxtu yu bëri ñoom kase ñi nekk ci mbedd yi di def lu leen neex ñenn ñi sax lu ñu romb moo xam table la wala chaise te jaaykat yi teg ko fa dañ koy yàq bu dee fi nga xam ni moom mooy Daaru Xuddoos ndaw yi dañoo songu agence su Senelec ba fa nekk dugg ci biir yàqate fa lépp luy ordinateur wala jumtuwaay bu ñu liggéeyee benn oto Senelec bu doon gaari ca bunt ba it ñu taal ko ba mu jeex tàkk ñi takk yi ñoom néew gi ñu néew tax na jàmmaarloo ak ndaw yooyu nekkoon na lu jafe ci ñoom waaye teewul am na ci ñu bëri ñoo xam ne jot nañ leen a teg loxo ci diggante Touba ak Mbacké Serigne Mountakha basiiru sax bi minuy jotee ba weesu ci la yëkkati ay kàddu daa di wax ñi nga xam ne ñoom ñooy manifestant yooyu nañ dakkal li ñuy def dellu ci seeni kër ginnaaw tuuba ak Mbacké nemmeeku nañu ay jàmmarloo ci yeneen bërëb ci réew mi lu ci mel ni Tambacounda Kaolack ak ci yenn ci ay quartier fii ci Ndakaaru dàkkal nañu ubbite classe examen yi ñu appaloon ci ñaari fan ci weeru juin bii le report dara waralu ko lu dul ab personnel enseignant bu ñu nemmeeku ni dañu amee wopp bu coronavirus foofee ca Ziguinchor bi le situation nag bettul benn yoon syndicat wu yi bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général bu CUSEMS di Abdoulaye Ndoye mu ngi sàkku ñu delloosiwaat jàngalekat yi kenn ku nekk ci këram ñu teewlu ay kàdduwam responsabilité jël ay doomi jàmbur ay njaboot yóbbu leen ci àll bi ñu ne reporté nañ kenn xamul école kañ lañ koy ubbi fu ñu nekk aussi ñu ñëg leen di daw mais loolu c'est des problèmes c'est soldats du savoir réew xam-xam a ko yor njàng a ko yor gis nañu lu ñu def jàngalekat tuutal nañu leen mais tey jii ñun bu ñu ne woon du ñu dem dañu naan jàngalekat yi ñoo bañ liggéey ñoo yàq njàng mi mais jàngalekat yi comme ñu ko mës a wanee ci jom ci kersa ci ngor ci dignité malgré les conditions difficiles jël nañu seen i bagages dem dans des conditions difficiles tey nag bu gouvernement bi ne gis na ne mënuñu reprendre kon ñun lu ñu doon wax démb moom la confirmer tey beneen mbir mi nag mooy collègue yi wax naa stigmatisation mooy ñoo xam ne bi ñu demee foofu dañ leen di moytu loolu moo am kon nag lu ñuy wax tey mooy président Macky moom moo jëloon décision tëj école moo jëloon décision ubbi école yi moo jël décision yóbbu jàngalekat yi gi nee na mënatuñu na delloo doomi jàmbur yi seen kër loolu lañ koy wax nañu delloo jàngalekat yi seen kër ñetti weer bu Sénégal amee kaawam bu njëkk ci coronavirus fi mu ne nii dépassé nañu limub ñeenti junni ci ay nit yu amee boobee wopp diggante avril ak mai mbir yi dafa ful te fi ne nii fukk ak ñeenti région yu nekkee ci réew mi yëpp am nañu wopp bi waaye Dakar moo di diwaan bi nga xamante ni fa la gën a fësee ñu teewlu point mensuel bu docteur Abdoulaye Bousso di directeur des opérations d'urgence sanitaire. entre weer bi ñu génn ak weeru léegi yokku nañ lu ñetti yoon. nañ ñiy wér yokk nañ lu mat juróom benn yoon ñi faatu nag loolu moom mooy mbir bi nga xam ne moom la ñu war a bàyyi xel parce que ñi faatu mi ngi yokk je pense mi gis presque bés bu ne ñu annoncé ñoo xam ne faatu nañ ci feebar bi et boobaak léegi ñu ngi woon ci juróom-ñett ñoo xam ne faatu woon nañ ci weer bale passé fi mu nekk nii ñu ngi ci euh, ñeen fukk ak juróom ñaar ñoo xam ne faatu nañ ci wàllu ñi nga xam ne ñoo am feebar bi ci téeméer fukki yi ñooy ay cas communautaire cas yi nga xam ne ñoo jugee bitim réew nag loolu du ñàkk bu ñu jëlee téeméer bu ne à peu ñaar ñooy jugee bitim réew ñi nga xam ne ay contact lañ mooy ñi nga xam ne dañu taqaloon ak ñi nga xam ne dañu am jàngoro bi feebar ñooñu bu ñu jëlee téeméer bu ne juróom ñett fukk ak juróom-ñaar ñooy ñi nga xam ne ñoo ñoom lañ testé positif jàpp nañ ni suñ jëlee téeméer bu ne juróom benn fukk yi amuñu benn mandarga ci seen yaram donc ñooñu ñooy juróom benn fukk yi donc jàpp nañu lu bari la ba loolu tax na sax ñu bari dañu jàpp ni feebar bi amul mais lu am la ci wàllu gox yi léegi région yépp am nañu ay ka te bu ñu xoolee aussi suñu district yi juróomi fukk ak benn am nañu ay cas ci ci Ndakaaru la gën a tare parce que ndakaaru moom la ñu jàpp ni bu ñu jëlee euh, téeméer bu ne juróom-ñaar fukki ak ñeent ci ndakaaru la ci wàllu góor ak jigéen yi nga xam ne laal na leen nag góor yi ñoo ëpp tuuti parce que boo jëlee euh, téeméer bu ne juróom fukk ak juróomi ay góor lañu ñi liggéey école docteur laal na leen te jàpp nañ ni fi mu nekk nii am nañu téeméer ak fanweer ak juróom benn suñu xel mu ngi xaw tey tuuti bu ñu gisee léegi askan bi nu ñu ko jàppee ñu ngi xaw a bàyyeeku te loolu nañu jàpp ni génn guñu daal Europe états France Italie jomb guñu ba léegi fii lañuy ñuy ndar keppe jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud seen rajo dig daje dibeer bi di ñëw. Ndeye Khady bokk na ci li gënoon fees fes ci xibaar yi euh, permission wu euh, ñaari weer bi ñu mayoon Hissène Habré ngir jàngoro coronavirus bi mu génn ci kaso bi permission bi dafa daal di jeex euh, seen communication bi ak ñii di ay avocat am demandé woon pour yokkalaat ko mayaat ko ngir jàngoro ji fu mu toll ci réew mi waaye nag loolu mu jul sotti ndax ñi ngànku yoon dañu ne ci juge bi. loolu du mën a ne say avocat am nag ak cellule comme bi daal di génne déclaration euh, pour ŋàññ lu ni mel wax nañu itam ci wàllu dem beeg dikk bi ci set place yi nit ñi ñi ngi leen di dugal comme ni ñu leen daan dugalee di buuxante ci biir te du loolu la ñu santaane donte ñi ngi jël ay mesures ca gare routière Liberté bu Kaolack demoon nañu itam ba Thiès foofu le maire bu Thiès Ouest ne dina gunge transporteurs yi ci wàllu ubbiwaat gaaxu routière yi nit ñi mën a dem mën a dellu si euh, ñi di consommateurs yi moom ne nag seetu nañu ne daal dem bekk dikk bi dafa mel ne ba tey mi ngi sooxe ndax euh, nit ñi daal ak liggéey bi ni mu daan doxee mel ne ne doxewul ni ñu ko bëggee gum wax nañu itam ca fa li nga xamante ne moom mooy Kaolack jàngoro yi di poliomyélite rougeole ak kolera soo moytul dana yeewu ndax euh, ñàkk yi ñu ci naan ñàkk xale yi fi mu ne nii. dafa sooxe lool way jur yi dañu daw ba bërëbu fajukaay yi ndax ragal jàngoro coronavirus te euh, war nañ ci def campagne ngir yee leen ci lu ni mel collectif bi ëmb comité développement sanitaire meex lool waa couverture maladie universelle nee nañu kat dañ leen nañu xal ay ndàmpaay yu ngi leen wax a fay déglu ngeen ci kii di Euh, Mamadou euh, Bakhoum di seen coordonnateur li gënoon fees ci ay bés bi ñu ngi ci àndoon ak Josette Kali Pape Lay ji ci machine bi Ndeye Khady Diop ci micro bi 22h Aïssatou Gueye Ba dina fa teew ci xibaar yi ci nasaxaan ñi ngi leen di ñaanal ngoonu càmm.